tuuma yu bees ci ndodd conseil constitutionnel kii di Mary Teuw président coalition bii di MTN 2024 mu ngi xamle ni rek dañoo laal clé am bi mu fa déposé woon suñu clé boobu ñu joxe woon clé boobu ñu joxe woon mbaa di ko laal mbaa dañu ko jël beneen clé remplacé ko moo tax ma ni ñun de suñu clé bi ñu déposé woon te ñu ni sous scellé la nekk laal nañu ko mbaa dindi nañu clé bi ñu déposé dugal beneen clé ndax wuute bi munul nekk rax ci dolli beneen xibaar bi nga xamante ni barki démb lañ ko seetlu. suñu cellule informatique bu ñu paree loolu mu continuer di saytu ba barki démb ci guddi rek benn mbir bu doy waar egsi bu ñuy xool ñi nga xam ne nee nañu kenn gisu leen ci fichier électoral bi xàmmee wuñu leen ci fichier électoral bi ñu gis ci sama tur man mi nekk candidat. ci ndaje bi mu amal ak taskat xibaar yi Mary Teuw Niane àdduna jëmale ci lu ñeel ay élection yu jaar yoon ñu dellu di wax ni ñun élection yu jub lañu soxla élection yu jaar yoon lañu soxla élection yu ñu dindiwul kenn ku war bokk ci élection yi li tubaab di wax élection inclusive moo ngi ñaax conseil constitutionnel mu saytu lii di recours bi mu dugaloon su ko defee ñu respecté li nga xamante ni mooy ay yelleefam